ministre bi génne na benn communiqué de presse le 23 août passé wax ni euh, dajale na ñaari parti yëpp dajale na travailleurs yi dajale na Expresso euh, direction générale Expresso et que ku nekk d' accord nga jox nga ko sa accord dafa le mot qu'il a exprimé c'est que accepte dafa ne direction bi accepté na bàyyi lépp looy wax loo xam ne waxu licenciement la teg na ci suuf que direction bi accepté na débloqué machine u travailleurs yi nga xam ne daf ko tëjoon et que travailleurs yi nañ bàyyi seen i ñaxtu rejoindre seen bureau mais boobu ba léegi ba pare mu def benn commission commission boo xam ni ARTP moo fa nekk direction du travail moo fa nekk secrétaire général du ministre moo fa nekk ak ñaari parti yi mu ne waxtaan leen ngeen juboo ngeen dem vers des négociations de euh, départ négocié wala lépp lu ngeen mënut a def l' essentiel ngeen juboo que jàmm ñëwaat si seen kër gi. loolu nag bi ñu ko tegee ba léegi commission bi réunir na mercredi réunir na jeudi réunir na vendredi parti yëpp teew nañ ci réunion yooyu mais bi ñu demee ba nga xam ni. direction générale dafa am benn point de blocage bu mu teg si kaw table mooy li mu waxoon ministre bi ne accepté na débloquer compte travailleurs yi daf ko refusé def donc booba léegi mu nekk ñaari fan yoo xam ni ñu ngi tourner autour du pot bu ñu ko nee lu tax débloqué wuloo compte yi mu ne damay xaar waa Soudan damay xaar waa Dubaï di di di layam-layam yi te loolu ñun mënuñu ko accepté vendredi à 13h si la autorité yi woote parti yëpp ñu ñëw def li ñu tuddee signature d' accord signature du protocole d'accord bi nga xam ne moo ñu yóbbu ci jàmm moo ñu yóbbu ci négociation mooy installer officiellement commission boobu comme ça ñu commencé travaux mais direction générale Expresso ñëwuñu sax ci réunion boobu vendredi 13h xaar nañ leen ba sonn ñëwuñu et que yeneen parti yi fa teewoon yëpp signé nañ quatre wul parce que teewuñu fa woon loolu nag manque de respect la si suñuy kàddu autorité loolu manque de euh, défiance la boo xam ne dañ ko def état du Sénégal au plus haut niveau le chef de loolu ñun travailleurs yi ñun sénégalais yi duñu ko nangu parce que ku ku ku ñàkkal fayda suñuy autorité wala ku bafoué défier suñu autorité ñun sénégalais yi nga défier te loolu ñun travail séné euh, en tout cas ñu sommes au premier rang pour dénoncer ça pour protester contre li nga xam ni Expresso moom la nekk di def. parce que tey jii le fait que Expresso def loolu ba pare ñu dolli si tey ñu xëy démb dimanche envoyé benn mail ne. bu kenn liggéey si yéen yëpp toog leen seen kër ngeen def télétravail loolu c' est inacceptable kenn mënul comprendre loolu acte de sabotage la parce que tey jii kenn mënul comprendre Expresso ginnaaw bi muy bañee négociation yi ginnaaw bi mu refusé débloqué contre travailleur ginnaaw bi muy bañee ñëw signé protocole d' accord bi mu tey tëj bureau yi ne kenn du liggéey si gis ngeen ko si ginnaaw benn bureau ubbiwul empêche euh, travailleurs yi mënuñu accès seen bu loolu acte la donc ñu ngi laajte lan moo nekk si ginnaaw xelu Expresso parce que lii nekkatul rek bëgg dàq ay employés nekkatul bëgg dàq une cinquantaine d' employés am na lan moo lan la ñu ngi laajte lan moo nekk si ginnaaw projet bii nga xam ne direction générale Expresso loolu la bëgg a parce que nekkatul tout simplement licencier des gens loolu nag moom ñun en tant que syndicat ñun en tant que travailleurs yi dinañ ko xeex parce que ku ñàkkal fayda suñu kàddu nguur gi nga xam ni ñëpp tey ñu ngi si suñu ginnaaw nguur gi mu ngi suñu ginnaaw teg teg na jalon yëpp yoo xam ne pour jàmm dellu siwaat si biir Expresso mais Expresso ñoom ñoo leen faalewul ñoom ñoo leen respecté wul ñu ngi laajte loolu lu Expresso am fit tey bañ a respecté suñu kàddu autorité yi bañ a respecté suñu nguur gi jalon yi nga xam ne ñu ngi koy teg ba nga pour jàmm dellu siwaat si biir Expresso en tout cas ñun travailleurs ñun syndicat bi loolu dinañ commencé tey joxoon nañ suñu kàddu autorité yi ne leen dinañ bàyyi lépp mu tegu ci suuf mais puisque léegi nii seen kàddu ñoom yoon may nañu ko en tant que syndicat ko teg pour euh, euh, expliquer dellu ginnaaw. ban xeex comme ban xeex. commencé nañ tey de presse yi pour yëgal sénégalais yi nii li ngeen yaakaaroon ni problème bi réglé na problème bi bougé wul fu ma yemoon fa la ba léegi. parce que communiqué ministre bi mi génne ñëpp dañu foogoon ni problème bi réglé na mais en réalité dara réglé wul parce que expression mi ngi wiiri wiiri di layam yàlla pendant ñetti fan pour débloquer machine rek ñaan dañuy ay autorisation loolu acte de sabotage ñun nag commencé nañ tey conférence de presse yi bu ñu si jógee dinañ wéyal suñu suñu lutte. am na yeneen programme yoo xam teg nañ ko si weekend de toute façon fii ba vendredi lii ñu def nii mooy sitting si buntu exposition dafay wéyandi en attendant yeneen plan d'action yi nga xam dinañ ko génnee si biir semaine bi am na benn marche de grande envergure bu ñu préparé mais dinañ déposer autorisation au niveau du pour bu ñu ñu def marche boobu avec tous les syndicats nga xam ne ñoo ñuy jàppale avec toute la nation sénégalaise surtout avec ñi nga xam ne ñëpp dañ leen opprimer ay travailleurs yoo xam dañ leen mës a opprimer wala ñu leen nekk di opprimer fi ñu toll nii. semaine passée da ngeen doon wax ne da ngeen soupçonné dañ leen bëgg a remplacer par ay liggéeykat yu jógee feneen est-ce que vous maintenez ces actes loolu mi ngi am ba léegi parce que tey jii Expresso cadre yu bëri poussé nañ leen à la sortie parce que ils sont mis dans de mauvaises conditions ba ñooñu dem nañ mais ñooñu ñëpp kenn remplacé wu leen amul benn travailleur sénégalais bu leen remplacé au contraire dañuy yónnee fii ay soudanais yu ñëw ñu defal leen benn prestation de consultance bu ñu jaaree ñaari weer ñetti weer ñu defal leen CDI donc ñooñu en réalité ñoom ñooy remplacer sénégalais yi nga xam ñoo fi nekk te loolu tamit dénoncé nañ ko la la la la semaine passée. en français en français vous le disiez la semaine dernière que vous soupçonnez un plan de remplacement de sénégalais par des expatriés. effectif ce que nous disons c'est que nous nous constatons juste des faits aujourd'hui on avait dit la dernière fois que 23 pour cent 37 pour cent qui ont démissionné sont des cadres de à Expresso et ce, ce personnel n'a jamais été remplacé ni par un, le personnel existant ni par de nouveaux travailleurs sénégalais au contraire on nous en, on nous mois après on les fait signer des contrats de CDI pour occuper les

lettres de licenciement ont été suspendues pour le moment. Mais le fait est que leur machine, tous, toutes ces 36 personnes ont vu leur machine, leur outil de travail bloqué. Donc, ils, ils n'ont pas accès à leur, données informatiques. Je pense que le camarade qui vient de, me succéder, euh, autant pour moi, qui vient de passer, a tout dit. Moi, j'attire l'attention de l'État sur un fait. Je pense que Expresso est, un, est une entreprise de droit sénégalais. Par conséquent, elle doit tout simplement s'accommoder à l'autorité du pays. Aujourd'hui, ce, qui est en train de, euh, euh ce les autorités de Expresso sont en train de faire, tout simplement, c'est seulement bafouer l'autorité. C'est des actes de défiance qu'ils posent. Donc aujourd'hui, je pense que la responsabilité de l'État, c'est tout simplement de conduire M. Radi à l'aéroport et de l'expulsion du Sénégal. Je pense que ça, c'est l'acte Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans un pays et outrepasser, outrepasser les, règles, les, les règles du pays. Et ce que M. Rari est en train de faire, c'est ça. nous avons compris que le mode opératoire est simple, parce qu'aujourd'hui, il veut laisser prospérer euh, ce qu'on appelle une situation de pourrissement. Aujourd'hui, s'ils sont incapables, de, de gérer la structure, l'État n'a qu'à renégocier et essayer quand même d'appeler les autres. Parce que je pense que le Sénégal est intéressé par d'autres pays. Si aujourd'hui, Expresso n'a plus les moyens, ou bien du point de vue de la stratégie, ils sont incapables quand même de, de, de poursuivre l'aventure avec le Sénégal, ils n'ont qu'à quand même serrer les actions et laisser passer, et laisser, et les laisser entre les mains du, du, du, secteur privé national sénégalais. Je pense que c'est ça en fait. Euh, li may li li may li may wax nag mooy euh, dama ñëw fii di jàppale waa Expresso parce que wax ji aussi jarut a bëri la li fi nekk mooy état moo war a jël responsabilité bi ñu expulser le directeur général parce que li muy def teg ko fenn acte de défiance lay teg acte de défiance bi nag day day day day day maanaam day day fragiliser même les institutions de ce pays li ñu def si li mu def fii Sénégal nit sañu ci jóge Sénégal di ko def Soudan. nit sañu ci jóge Sénégal di ko def Soudan il est clair que li ñu bëgg mooy aujourd'hui ils sont en train de dérouler ñu ngi ñu benn plan bi nga xamee nii mooy dafa mel ne dañu nekk ci en plein dans le dans le licenciement économique. parce que ce qui s' est passé ils ils fermé boutique li ñu def naan naan dañuy def télétravail ce n' est rien d' technique loolu moo am. donc ñun état du Sénégal la ñuy interpellé parce que problème bi nekkatul ci diggante employé yi ak la direction générale dafa nekk ci diggante autorité locales yi ak le directeur général xamee ne c' est les ñoo ko jàppale. Mm-hmm. am na yenn sénégalais yi nga xamee ne dañ leen dañ leen di jël. au lieu de nous faire valoir leurs compétences, ils sont là aujourd'hui pour essayer d'accompagner la direction générale dans ce projet pernicieux. Mmh. C'est ce que nous n'allons pas du tout accepter. Donc, l'utilité de moi, nous avons nous avons et que le secteur peut l'interpeller. Ce mhm. qui interpellé le secteur, aujourd'hui, le gars là, on va le foutre d'or. Je pense que c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour que avant nous au Sénégal. Maintenant, nous avons négocié avec le Soudan est n'a qu'à le foutre dehors n'a qu'à l'expulser nañ ko bañ a mu génn Sénégal loolu moo woon lañ lay